di rafetlu taxawaayu ministère de la santé ak médecins yi parce que prise en charge bi woné na ci en tout cas taxawaay bu am solo et résultat yaangi fi parce que ci ñaari fan quasiment amna na ñoo xam ne ñibbi nañ seen euh, ñu amna ñuy suivre seeni kër waye amna na ñoo ne des na cas grave quelques-uns la et ils sont bien suivis nit ñe ñoko wax waye tay xamnañ ni du origine virale moo tax d'ailleurs walé amu ci mënuñ ci wàll kenn ku ku jonkantewul ak mbir mi amaana du la du la du la jàpp donc moo tax xalaat yu bëri ñu ngi dem ci wàllu pollution pollution boobu nag bu amee dama leen di wax ni euh, samay service jox nañ ma certitude bu ñu demee ba xam ni pollution la bu dee ci environnement bi dinañ liggéey ak ministère de l'environnement waaye bu dee wàllu ñi nga xam ne dañuy napp la incha allah danañ dem ba ci origine bi parce que service yi déjà xay euh, récolté nañ euh, ci fukki fan yu wees lépp lu doon navire wala loo xam ne yaa ngi woon ci suñu géej loolu pour l'instant danañu orienter rapidement ci responsabilité yooyu pour ñu mën ko xayma parce que c'est ça qui est important ci dogal yi ñuy jël ndax dogal yi am na sens ou déet euh, lii du genre comme épidémie bu ñuy ragal wala ay luy wàllaate wala que waruñu lekk ay jën déedéet loolu yëpp du cause du origine kon na ngeen ci dalal xelu nit ñi xam ni daal euh, nit ñi en charge autour du ministère de la santé. L'analyse euh, bu analyse euh, service du ministère de la santé def révélé que li nga virus. ñu am ci xel bu dal bu baax en si bon chemin le gouverneur de la région de Dakar mu coordonné ben sortie euh, nous avons les équipes euh, de la direction euh, de l'environnement et des établissements classés avec la brigade de l'environnement ak un laboratoire dem en mer précisément à 8 km de Ndayane pour effectuer les nga nous avons des prélèvements. wax prélèvement ñëw nañ ci prélèvement sécuriser nañ yu concerné

Euh, depuis 20 jours euh, selon les pêcheurs euh, constaté nañu zone bi am la zone mi a, a na ay algues lol lol a été jours dafa coïncider ak apparition li nga der nit ñi